mbokk yi dal leen ak jàmm ndax ngànnaay yi njàlla ñoo fi si réewum Sénégal ñu koy duppee ay armes légères duñ ci wax Sud Quotidien xëy ni àddoo ginnaaw bi nga xamante ni bii gis na ay ngànnaay yu bëree bëri yoo xam ne indi na ñàkk kaaraange gu taratar fii si biir réew mi mu ngi naan am na ay dëkk yu bëree bëri yoo xamante ni bii ay sàmba booy cong nañu leen indi fa musibaak mbelengaan ak ay arme yi nga xamante ni bii daanaka moom la ñuy yor te ay ngànnaay yoo xam ne daanaka foo tourné di nga ko fa seen yéey ju mujj ji nga xam ne yooyu lee arme def na ko nag ni ki démb la xewee foofu si station EDK bi nga xam ne moo nekk si diwaanu Ndar Géej Vox Populi xëy nga xam ne moo fa xew ba sàmba booy yi nga xamante ni bii ñoo doon song boobale a foqati koppaar yi nga xam te ni bi moom la ñu liggéey bëccëgu dara kàmm jàmbaarloog ñi nga xam ne ñoo di takk der ya di ay sandarma ba ñu sandarma yooyu sax faat sa kenn si ñoom gone gu góor gu am ñaar fukki at ak ñaar di wuyoo si turu Isma Sow moom lañ fa faat ginnaaw bi nga xam te ni bi soqantey bal dox na diggante sandarma yi ak defkat yi yooyu leen ñawteef l'observateur naan ndaw loolu ñu fa faat nag moom moomee ñu bëggoon koo suul si cëgu paal ya xalif moom kenn ko suul si yooyu le sëg ndax jëf ju ñaaw looloon def ba faatu ca des si biir l'observateur ak Omar Dem mi nga xamante ni bii moom sa diwaanu Kaolack daan nañ ko juróom-ñaari ati kaso yoo xam ne dina ko tëdd ginnaaw boo xamante ni bii faat na soxnaam moom nag yéene kaay bi di fàttali li nga xam ne moo ko jotale woon ak soxnaam moom mi da ko soxla woon maanaam bëggoon séq ak moom si guddi ga soxna sa gàntal ko si la ko dóoree ba xoj ko mu daal di faatu ñaari doomi Sénégal yi faatu woon si diwaanu Espagne la laas yéene kaay del si waat seen xew-xew ak seen yi nga xam ne ñoo fa des yéenekaay bi naan lu tolloog juróom benn million képp moo tee ñoom doomu Sénégal yooyu ñu delloo siwaat leen fii si réewum Sénégal tax na ba seen mbokk yi nga xam ne ñoo dund si Tambacounda nekk si njàqare bu baax a baax ndax ñoom seen doom juróom benn million képp moo tee ñu ñëw fii si réewum Sénégal téeméer ak fukk jàpp téeméer ak fukki milliards yi nga xam ne moo jëm si appel d'offre bi nga xamante ni bi Senelec def na ko si location barge bi nga xamante ni bi mooy tax ñu joxe courant bi fii si réewum Sénégal yi bëri na jàpp ne boobule appel d'offre maanaam parparloo da si am gré à gré tax ki nga xamante ni bi nag moo yor kàddu ga foofu ci diwaanu Sénégal rek weddu yooyu la kàddu ba tëdd sa naaj wa naan bu fekkee ne am na kenn koo xamante ni bi gis na beneen société boo xam ne mooy def location barge na ma ko wax man benn société bii képp laa xam moo waral tamit benn société boobu képp lañ ko jox moom Amadou Diagne di wax naan li ëpp solo kay mooy société boobu njariñ li nga xam ne dina ko indil Sénégal ndaxte kilowatt heure yi nga xamante ni bii dina ko jox doomi réew mi mooy ëpp lool kilowatt heure yi nga xam ne moo doon jógee ci centrale yi mu ngi naan it boobu les projets de location ñu ngi ko xaatimoon ci jamono ji nga xamante ni bii Mamadou Makhtar moo nekkoon directeur général bu Sénélec moom Mamadou Makhtar Cissé nekk ci xëru njëkk l'observateur ci rapport bi nga xamante ni bii si la ñuy valider financement yi nga xam ne moo jëm si secteur courant bi fii si réewum Sénégal muy loo xamante ni bi yenn kaay bi naan histoire dabaat na ko moom Mamadou Makhtar Cissé ginnaaw bi nga xamante ni bi daanaka mën nañoo wax suuf dugg na ci bëtam ba tax dina toxuñu ci yoreen gi nga xam ne yoroon na ko Senelec ak yéene ji nga xamante ni bi moom la amoon ak bor yi nga xamante bi moom la bàyyee kër ga ba tax jamono ji mu nekk ci jafe-jafe Vox Populi moom del si waat ci kàddu yi ki nga xam ne moo di Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi nga xamante ni bi yëkkati na ne ay jiyee am na si ni nga xam ne noonu la ñuy joxe semence yi maanaam nga xamante ni moo di secrétaire général bu producteurs yi nga Cissé Lo naan li nga xamante ni bi Moustapha Cissé Lo wax na ko dafa am sañu wax ko ci kaw rek waaye mooy li nga xamante ni bi moom la producteur yëpp di xalaat ci suuf moom Moustapha Cissé Lo fësati ci xëtu njëkk turbine yéene ginnaaw bi nga xamante ni bi nag indi na ay révélation ak ay coow yoo xamante ni bi judd na fi ci réew mi dafa mel ni ubbagut gémmiñ ga ba léegi ndaxte mu ngay wax naan dañoo war a auditer assemblée nationale rawatina ki nga xamante ni bi moo mooy auditer gestion patron wu assemblée nationale ndax duñu auditer délégation à l'entrepreneuriat rapide ak lu si mën di am ginnaaw bu ñu yoree li fës si xëtu njëkk enquête yéeni kaay moo di coow amati na fa ginnaaw bi nga xamante ni bii coow juddu woon na seen digganteeg Zahra Iyane Thiam bi naan am na yeneen coow loo xamante ni bii moo dox diggante boobule délégation ak benn menuisier boo xamante ni bii mooy wuyoo si Sandiane Diallo moom moomee dafa amoon benn projet boo xamante ni bii moom la waraloon liggéeyal góor gi président de la république signal ko seegu fukki million ak juróom waa délégation bi ronqat ko ba mu ñoom moom lañ naan ko dañoo juumoon si boobule projet waa grand place moom bi nga xamante ni bii si wàllu mbalit mi la jëm moom la bi nga xam ne bëgg nañoo tëj site bi nga xam ne moo di mbëbës nag ubbi beneen sët foofu si diwaanu Dangon waaye foofee daa mel ni ay jafe-jafe am na fu bu baax a baax ndax ñi nga xam ne ñoo di askan wi ànd ñu benn yoon ñu indi leen mbalit mi ak jéye ji nga xam ne moom la àndal ñi nga xam te ne bii ñoo di buujumaan yi ñoom daanaka ànduñu si boobulee projet ministre bi nag mu ngay artu bu baax a baax moom Omar Gueye di wax ni bu may moytuut dina teg ay daan ñuy gàntal boobulee projet jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg allah